ni nee naa ñu ni nee naa ñoo bokk bi ñu ni nee naa ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu bi nañ leen bu baax a baax a baax di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ñun seen biir seen Tivactu TV ñu dikkaat ak seen biir émission géew bi ni ngeen ko xamee muy jotaayu waxtaan boo xamante ni dañ ciy waxtaanee tolluwaayu Sénégal waaye tamit li ñu ëppal solo nga xamante ni moom moo ñu tax a jóg mooy Tiwaawan ñu si waxtaanee tolluwaay Tiwaawan ci lu mu mënti doon loolooy tax chaque yéen ñuy ñuy invité benn nit war a waxtaan ak moom tey nag suñu gan ci biir émission géew bi mooy Matar Diouf di responsable politique APR biir waaw maa ngi lay fay Doudou di nuyu waa Actu TV eh, di nuyu waa Sénégal di nuyu eh, waa Tivaouane eh, jiite ci sunu xalif général Serigne Babacar Sy Mansour ak njabootu Sidi Hadji Malick yëpp di feddali sunu kóllëre ak njabootu Serigne Abdoul Aziz Al Amin mi sunu wasila di sant di sunuy waajur sunu waajuru góor ak sunu waajuru jigéen di nuyu Sénégal gépp waaw Matar dañuy tàmbalee waxtaan bi rek ak li nga xamante ni mooy appaire bu Tivaouane APR bu Tivaouane suñ ne APR bu Tivaouane bëri na fi ay ñu si nekk mais yow nga nekk si di bay sa waar comme ni ko ñëpp di defee tey seen liggéey ci biir APR bu Tivaouane fan la tool ap parce que à part élection yi ba léegi déggaataguñ leen bu fekkee am na ñuy aw nii di def ku nekk di def li muy def yow sa biir liggéey ci biir APR fan nga si toll. waaw honnêtement depuis après les élections ba léegi nag gars yi euh, amul benn activité boo xamante ni que def nañ ko bon ñun suñu parce que xam nga élections yi dañu defoon deux groupes donc euh, am groupe boo xamante ni que dañu ànd ak le maire Diagne Sy Mbengue am groupe boo xam ne dañu ànd ak euh, Abdou Ndéné Sall. bon c'est malheureux mënoon nañ nekk benn mais bon noonu la ko yàlla tuddee woon quoi. mais ñun pratiquement suñu groupe depuis après les élections ba léegi bon mënewuñ benn activité defuñu benn rassemblement gisantewuñu aussi mais euh, xëy na euh, gars yi dafa am ci ñu nekk rek moo tax gisantewuñu mais man personnellement euh, pandémie bi fi jaar defoon nañ ay dare donc bien vrai que am na ay gestes yoo xam ne que def nañ ko pour jàppale doomu aadama yi des gestes sociaux yi am na famille yoo xam ne vraiment xaw na leen sonal parce que boobu tëj nañu yoon kenn mënul dem fenn donc am na loo xam ne liggéey nañ ko jàppale nañ ko doomu aadama yi ci sutura ak ci suuf sans ñuy woo yi ak di ko kii parce que man baaxewuma loolu man en général lu may def rek dama koy def te yàlla tax donc mais su loolu weesoo euh, ñu ngi mëne suñu activité en autre manière ñu ngi koy def defin boo xamante ni que euh, ñu ngi saafonte ak suñu ay militants ñu ngi leen di seeti ñi ngi waxtaan ak ñoom di leen xamal ni leen ni que euh, ñu ngi feddale sunu kolere ak président Macky Sall ñu ngi liggéey ñu ngi ñu ngi waxtaan ci suñu biir quoi waaw mais xam nga nag euh, affaire bi moom du course de euh, vitesse course de fond la day foo xam ne duñ fa tolloo ndànk-ndànk rek comme xamaguñ élection kañ la xamaguñu fan leen jëm donc dañuy dañuy def ndànk rek mais ñu ngi liggéey nag aussi ñu ngi liggéey waaye ci suuf quoi. ci biir de parties yooyu nga wax ku mel ni Abdoul ku mel ni Abdou Ndéné Sall ak ku mel ni Diagne si Mbengue benn instant dañ la doon gis euh, côté Diagne si Mbengue moom nga gën a féete. waaw boobu maa woon ci côté Diagne Sy Mbengue effectivement parce que jàpp naa ni moom moo nekkoon moom mooy le maire de Tivaouane benn euh, c'est le pôle du potentiel communal donc euh, président jiital ko ci commune bi donc man. ci moom la côté laa nekkoon ñu ànd liggéey ci donc liggéey ci liggéey bu rafet aussi liggéey bu jaar yoon nag vraiment def la tour du département bon astafurlah tour commune bi liggéey ci liggéey boo xamante ni que euh, bi ñu paree gis neen résultat yi ñun xam nañ la ñu liggéey waaw loolu nag c'est normal parce que man maa choisiroon camp boobu parce que loolu laa gëmoon ni ñoom effectivement te élection yi ni mu déroulé xam nga ni camp boobu ñoom la président joxoon pour ñu kii ko pour ñu diriger élection yi fii euh, si commune Tivaouane donc ñu ànd ci bi mu jeexee aussi jeex na donc depuis lors maa ngi toog aussi sama kër waaye. ba léegi nii dangay ngay di ànd ak Diagne si Mendy wala da toog continuer yor sa chemin bopp comme ni nga ko waxee ci biir APR comme leader yi fi nekk di bay sa waar wala ba léegi yaa ngi ànd ak Diagne si Mendy. non man moom. Euh, sama chemin bopp laa mos a demee waaye sama chemin bopp laa yor ci APR donc ku ma mën a àndal aussi dañuy ànd parce que dañuy nekk group dañuy boole suñu ay doole da ngay am sa doole ma am sama doole ñu ànd jàppale président Macky Sall pour le moment nii mënaguma wax dara parce que depuis élection yi toog amul donc mënuma la wax ni la kii wala kii pour le moment daal Matar mi ngi toog ci ruxam ubbi ay bëtam di xool. teg noppam di déglu di xool fa nu jëm waaw. moom monsieur le maire Diagne Sy Mbengue depuis boobu ba léegi mi ngi amal ay yëngu ci biir Tivaouane bu yàggul dara këram gis nañ mu rassembler ay militants ñëpp nekk fa est-ce que tey bu ñu ne woon suba élection locale day amaat moom bu la woowee di nga dem ànd ak moom. non loolu nag duudu mënaguma ci wax parce que loolu kooku man la ak Diagne Sy bi muy def effectivement bi muy def rassemblement këram message na ma ni ma damay def rassemblement sama kër mais demuma. Euh, dama ma yeneen yi mu doon def nag yëguma ko waaw ah, yooyu moom damay dégg rek gis ni ñu ni maire def na nangam maire a ngi séddale nangam wala maire def na nangam mais man gisuma yëguma ko man nag lu ma nit boolewul du ma ci bokk am naa fulla jooju man Matar Diouf parce que yàlla def na su may ànd ak nit man je suis entier man aw ma demi mesure gaynde laa ci li may def te li may wax nii li ñëpp dinañ ko seetaan amul kenn ku ma àndal politique jël ndàcc man ku may àndal damay dem ba jeex mais nag su ma demee ba xam man maay kan damay toog sama kër sa mag bu nekk nag yaa xam sa bopp quoi waaw pour le moment maa ngi toog sama kër waaw. mais moom ba léegi moom Diagne si Mbengue bi nga xamante ni mooy maire Tivaouane am na fi benn mandat ak li fi xew moo tax ñu prolonger seen mandat léegi yow nan nga gisee taxawaayam ak yorin bi nga xamante ni yor na ko Tivaouane. bon taxawaayam ak yorin bi mu yor Tivaouane loolu ni ko ñëpp gise laa ko gise mi ngi góor góorlu mi ngi liggéey c'est un frère waaw man gëw ma loolu dudu gëw ma même du fekkee ni tey gis naa loo xam ni yorin bi lépp mënul baax mais mi ngi liggéey jàmbaar la am na am na lu mu fi def na fi lu am solo aussi man duma taxaw di wax kenn defu fi même du fekkoon ni dafa def safaan man du ma def man du ma genre boobu. xaw ma du ma wax nit lu bon duma wax nit lu ñaaw xam naa ni que daal euh, mi ngi liggéey am na ci loo xam ne ànd naa ci ak moom mu liggéey ko am na ci loo xam ne liggéeyal na ko boppam donc li ma ànd ak moom mu liggéey xaw ma baax na xaw ma bonul bon na mais loolu nit ñi ñooy apprécier moom li mu defal boppam su fekkee ni baax na wala bon na loolu aussi nit ñi ñoo koy apprécier nit laa nag di doomu Tiwaawan di doo Tiwaawan màgge Tiwaawan jàpp naa ni euh, mi ngi liggéey euh, parce que tamit ay kilifa ñoo ko fi teg beneen bi ci des moom xam na li xew intellectuel la am na foo xamante ni que moom administrateur civil la am na ay noppam di dégg mais am na loo xam ne aussi am na ay manquement quand même am na ay manquement parce que nit euh, du parfait nit matul mais manquement yooyu nag am na ñoo xam ne war nañ mën jàkkaarloo wax la ko mais amaana du fekkee ni amuñu possibilité wala nangoo leen déglu pour ñu wax la ko ñoom dañuy toog rek di seetaan mais lépp matul nag mais jàmbaar la mi ngi liggéey quand même waaye. manquement yooyu noonu boo ñu doon wax li nga xamante ni lii jàpp nga ni waroon na def te defu ko lan lay doon. non loolu nag lu may wax ci ci ci penc. kooku moom entre man ak moom la man suma nit su may su fekkee dafa am lu may wax ci moom damay jàkkaarloo ak moom je préfère wax ko ko mais du may wax ci ci ay ay ay média man baaxoo ma noonu man waaw du ma defee noonu waaye. léegi tey ñu wax ci li nga xamante ni mooy Matar Diouf en tant que tel lan mooy ambition biir Tivaouane ak lan la xam Matar Diouf yéene waa Tivaouane. bon man moom sama ambition ci Tivaouane ak sama yéene ci Tivaouane loolu waa Tivaouane xam nañ ko man ba dara du dara laa bëgg Tivaouane laa xam Tivaouane laa miin Tivaouane moom a gënal fépp mooy sama Paris mooy sama London. Euh, Tivaouane nekk na dëkk boo xamante ni que ci man euh, dama ko fonk ambition yi ma fi am mooy lépp lu baax loo xamante ni que. gis naa ko wala gis naa ko faneen am naa yéen indi ko fii Tivaouane am naa ambition que tey Tivaouane am ay infrastructure yu baax moo xam infrastructure sportive la moo xam leneen la yaa ma dégg yéen bi ma am si Tivaouane mooy que tey Tivaouane nekk par mille maire villes du Sénégal li ñuy avancement bi ñuy wax naan par exemple dakaar avancé na ko Touba avancé na ko wala feneen ak feneen ak feneen Tiwaawan laa ko gën a parce que fii laa fekk cosaan mooy sama dëkk am na nañu yéene daal liggéeyal leen incha allahu rabbi parce que sunu ay frères ñoo fi nekk sunu ay su sunu ay yaay sunu ay baay sunu ay sëriñ waaw am nañ yéene daal doole ju ñu jëlee ci àll ba indi ko fii ci Tivaouane bokk ko ak waa Tivaouane investir ko ci Tivaouane. est-ce bokk na si ay ambition un jour mu nekk premier magistrat de la ville de Tivaouane. mais pourquoi pas <laughs> mais loolu koy amul ko koy bañ. Doudou yow sax loolu bëgg nga ko bokk na samay ambition mais lu jot yomb man ba duma taxaw di wax naan jox leen ma jox leen ma jox leen ma man du def loolu ñun ay ndongo lan rek ay taalibe leen yoo xam ne ci dëkk bi lan ne te dëkk bi ay réalité dañuy topp ci li kilifa yi bëgg kilifa yi comme ni ñu ni kii la rek ñu ànd ak kooku ci li ñu bëgg euh, wax naa ko élection locale yi passé j'étais avec Cheikh Tidiane Diouf ñu ànd presque j'étais man maa nekkoon deuxième euh, ci listam ñu ànd liggéey ko liggéey bu rafet liggéey boole ci sunu jom ak sunu fulla keroog bi ñu gañee bi jaañ si mbeng mii di ñëw kuli dama jël micro bi ni kon nangu nañ dogalu yàlla yow yaa nu gañee mais nag duñu la contre danañ ànd ak yow jàppale la ci dëkk bi te wax boobu moom laa gëmoon ba moo waraloon sunu ànd man ak moom élection yi mën nañu wax ni bu doon deux mille vingt et bii lay am mën nañu xaar Matar Diouf bokk ci ñi nga xamante ni dañuy sàmm seen ndënd pour jiite li nga xam ne mooy dëkk bi Tivaouane. non loolu moom wóoragul parce que élection dafa am lu mu laaj dafa laaj liggéey bu am solo liggéey boo xamante ne que laaj na des moyen financier laaj na travail boo xam ne à la base lay nekk te loolu pour le moment dafa am ay manquement man du ma nax suma bopp du ma nax aussi sama ay militants. du ma nax euh, samay mbokk li ma gëm mooy que daal am na yu nuy xaar am na yu ñu bëgg du fekkee que ni li ñuy xaar yàlla defal na nañu ci sutura incha allah rabbi dañuy tàllal sunu loxo comme ñëpp ba lanu yàlla may ñu jël du fekkee que ni nag mënuñoo am danaan xool parmi les ñu kun ci ku ci wóor koo xamante ni que ëllëg sunu àndee ak moom duñ ci am lu ñu naxar yi duñu woor te du war waa Tiwaawan ñu ànd ak moom jàppale ko tey ku mel ni Abdoulaye Ndiaye Ngalgou sa digganteek moom lan la xaritoo la wala lan la. non Ablaye c'est un frère moom sama frère la Ablaye Ablaye daf ma defal ma kenn defalul parce que dañu nekk di yëngatu ci politique mu toog ak njiitu réew bi Macky Sall wax ko samay wax wax ko ni ko Matar jàmbaar la wax ko yu rafet rafet rafet def link suma diggante ak président bien vrai que xamante woon président. xamante nag ñu gën a jege Ablaye Ndiaye président mais Ablaye la mu wax ba président toog ak man ñu waxtaan kooku dama ko ciy sant dama ko ciy gërëm loolu dama ko mus a fàtte wax naa ko ko toog naa man moom ak président ak Gumba euh, Gàmmu Fall fii ci ci ci esplanade bi Gàmmu Tiwaawan bu bokkul ak sama audience ak président biir pale ma ni président loo ma nar a defal defal ko Ablaye Ndiaye mii parce que xam naa ci moom ñu généreux nit ku baax la yaru na parce que loolu man Ablaye moo ma ko ci moo tax en retour man loolu rek laa ko mënoon fayale ma waxal ko waxuma sama waxi bopp bi ma toog ak président waxu Ablaye Ndiaye laa ko wax Ablaye Ndiaye ngi toog ne ko jàppaleel Ablaye Ndiaye parce que tey dafa bëri ñu bëri ñoo xamante ni dañ koy njottu ni Matar Diouf kat dafa nar a dem ànd ak ki nga xamante ni mooy Ablaye Ndiaye Ngalgou si seen mouvement ànd defar est-ce que loolu mën na nekk. man Ablaye Ndiaye su ma dee ànd ak moom du ma ko nëbb aw ma ku ma koy nëbb Ablaye c'est un frère su ma waree a ak moom damay ànd ak moom dara empêché wu ma pour ma ànd ak moom parce que ba ñëpp nee non moom moo ni wii keroog ba ma rallier dugg ci mouvement présidentiel ñoom ñëpp. dama waroon di ñëw seen meeting ñu may daw. mel si biir Tivaouane fii Tivaouane nangu ñoon ànd ak man c'est parce que président jox na ma oto président woo na ma président recevoir na ma ñu may jéem a écarter écarter borom xel xam nga politique dafa sew. mais mennum Ablaye Ndiaye moo ci doon jokkoo man di ànd ak man defar di defar ay t-shirt man moom photoom sama photo ak photo président ñu ànd di liggéey ñoo def meeting de clôture ñoom ñuy meeting kuli maag Ablaye ñu meeting kuli. mais ku ne xam na keroog ni sa waay mëne nu sa morom mane ku ne gis na sa meeting morom kon man aw ma lu may du may ànd Ablaye damay taxaw woola la yow woo yeneen si yi fi nekk yëpp ni leen man Matar Diouf bis ki tey dem naa jàppale ji Ablaye ngal ko pour mu jël ci waawan su ko bëggee su ma koy def yow dama la koy wax aw dara du ma ci empêché waaw. léegi ñu wax ak Matar Diouf. ci beneen casquette muy casquette sportif bi nga xamante ni moom nga doon ñuy fàttali ni Matar Diouf moom lañ dalal tey suñu biir émission géew bi di leen fàttali tamit responsable politique APR la waaye tamit deuxième vice président ligue de football bu Thiès Matar tey nan nga gisee tolluwaayu football fii ci biir Tivaouane. non football moom euh, di Tivaouane rek football dee na fi mu toll nii mon frère. Euh, deewagul mais mi ngi sukuraat quoi euh, soo déggee démb suñu président communiqué bi mu def bërki démb vendredi. mettre maître Augustin Senghor euh, bi nu génnee arrêté yi parce que xam nga nag dëkk du toogee presque un an et demi wala deux ans pratiqué woon sport day rey sport quoi te Sénégal doo xoolee pas d'avancement yi mu def ci sport bi temps yi ci football euh, xale yi niñ bëggee football moo ko kii centre yu bëri yi fi nekk centre de formation yi école de football yi donc académie yooyu ñoo dem ba moo tax ñu amoon grenier boo xamante ni que Sénégal li mu doon génn ci joueur en Afrique amul benn dëkk bu ko fi doon génnee soo xoolee suñu booy ñu ngi partout dans le monde di jouer parce que boobu centre de formation mais tey duñ demee ba tere yooyu tëj ko metti na parce que ak pandémie bi vraiment mais nag mënoon nañ ko accompagner ak mesures yoo xam ne doon nañu mën a pratiquer euh, suñu sport. parce que Matar nañu waxante dëgg sax Tivaouane wala Sénégal sax ni ñu gisee championnat war nañ mën a football même bu dee à huis ñu football. Ah, mais tubaab yi nga xam ne fa ëppee sax ñu ngi football. man nag xam nga mënuma maîtriser wu ma situation bi mënuma taxaw di ŋàññ mënuma taxaw di di défier aussi lu ministre de l'intérieur wax wala lu ministre de la santé wax man autorité bi mënuma ko défier mais xam naa ni daal euh, suñu mayoon ñu pratiquer suñu sport à huis clos euh, je pense que loolu doon nañ ñu arrangé parce que tamit nag mën na rey mën na rey footballu Sénégal daal waaw parce que suñ parce presque un an et demi deux ans pratiqué wonu mën na yàq lu bare bëree bare bëri mais je pense que ni nag danañ fubal euh, parce que du fekkee ni ñun suñu tutelle euh, fédération euh, bind na ministère des sports ñaan ko ministère des sports yóbbu intérieur intérieur yóbbu ministre de la santé ñu xool yan mesure lañ koy accompagner man jàpp naa ne war nañ mën fubal quoi waaw jàpp naa ne football war na mën a am quoi. tey bii Tivaouane am na ay club yu nekk même su dee si division inférieure am na Koli fa nga bokk am na Dames nan nga gisee tey manque d' infrastructure bi nga xamante ni am na Tivaouane club yi bu ñuy football amuñu terrain yu baax stade municipal bi moo fi nekk boobu ba léegi loolu nan nga koy gisee. waaw loolu moom dañ ko joytu fu nekk man maay président Koli euh, club bi championnat bi je suis le président donc UST euh, comme ni nga ko waxee. mi ngi fii euh, infrastructure moom non seulement stade de football bi sax même même handball bi renaissance euh, waaw basket bi la même chose temps yëpp maa ngi gis ñuy jooy infrastructure yàlla xam na ni que semaine passe ma du bare ba bari ay 10 jour lay def euh, maa ngi ànd ak le ministre de sports rek Matar ba ma ko nuyu de passage ñu ciy waxtaan mu ni ma yàlla mën na dogal incha allahu rabbi ci budget bii di ñëw Tivaouane deen ko defar man foogoo naa ne heure bi Tivaouane mais malheureusement euh, yàlla ak dogalam quoi mais xam naa ne daal soxla nañ ko Tivaouane daal soxla na stade de football. parce que doo xoolee ci région bi Mbour am na stade bu baax Thiès am na ñaari stade yu baax ñu ngi leen defaral Maniang Soumaré ñu ngi leen di defaral stade la Dior donc kon Tivaouane moo des ci trois départements yi nga xam ne moom mooy moo constitué région de Thiès man nag lii may wax nii wax naa ko réunion Ligue de Thiès porte naa xeex bi combat bi. xamal naa leen ni leen ni FIFA stade bii mu may te ngeen ni Maniang Soumaré ngeen koy defar mënoon ngeen ko defaree stade Tivaouane parce que yéen am ngeen stade Lat Dior am ngeen foo leen mën recevoir tey ñu ngi nii Tivaouane amoon na benn équipe bu ñuy wax Kayor Foot dafa obligé dem di di recevoir ay Mbour sali stade Jàmbaar ba tey gis nga ni mu fi mu mujjee kon donc ñun su fekkee ni am nañu stade boo xamante ni que eh, baax na tey UST di fi recevoir AS Cooli di fi recevoir. Kayor Foot di fi recevoir yàlla mën nañu defal sutura ba suñu football day gën a avancé quoi loolu moom dañ koy joytu dañ koy déployer vraiment ñi ngi koy ñaan le ministre des sports ñu ngi lancé appel di ko ñaan di ko ñaan Cheikh Tidiane Sarr mi nga xamante ni que doomu Tivaouane la moom mooy directeur des infrastructures au ministère des sports dañ koy ñaan suñu stade bi ngir yàlla nañu ci jàppale parce que xale yi soxla nañu ko ñun dañu ci wax a wax a wax a wax a wax a a wax a maire aussi vraiment war na jug sol dàllam dem seeti ministre des sports waxtaan ci ak moom quoi ñu jàpp ñu ñu defar stade bi profité defaraale stade handball bi ak stade de basket bi quoi parce que vraiment booy sonn nañ dëgg dëgg dëgg dëgg sonn nañ quoi. gis nga sax waa renaissance temps yi ñu ngi wax euh, benn levée de fonds pour réfectionner fi nga xamante ni mooy sem Ababacar boobu nga xam ni fa la ñuy recevoir ko ku xam renaissance handball xam ni jaloore bu nekk indi na ko fii Tivaouane équipe bu nekk premier division nekk élite bokk si meilleure équipe yi tey dem ba amuñ sax fu ñu compétiree loolu noo dana waar équipe bu jël coupe du Sénégal sax ngay wax nekk champion du Sénégal euh, yéeme na yéeme na man woo nañ ma semaine passée Doudou Ndiaye woo na ma ni ma il faut ñu jàpp ci ñun ñëpp ñu dugal ci suñu loxo donc euh, man dinaa ci waxtaan ak le ministre quoi waxtaan naa ci ak moom mu am lu ma ci waxoon euh, mais dinaa ci gën a waxtaan ak moom parce que daal jot na Tiwaawan nag génn waaw am ay infrastructures yu baax. sa moom rek moo ko amul ah, ci région bi waaw gers jot na daal ñu gers ko te nag li may wax nii damay lancer un appel nag président de la république ñun Tiwaawan dañ ko fonk ñun dañu taxaw xeexal ko dañu taxaw bi mu soxlaa ñun ñu taxaw ñun ñëpp àndandoo doon benn fexe ba mu am li mu bëgg kon moom aussi en retour président de la république maa ngi lay ñaan nga gëstu waa Tiwaawan nga jàppale leen parce nag ñun waa Tiwaawan vraiment am na lu des waaye. Matar ñu ngi may xamal ni li ñu desee si waxtu bariwul xanaa dañuy jeexalee rek ak euh, Covid 19 bi temps yi gis nga affaire yi nu mu kii boo doon am benn message de sensibilisation boo xamante ni da nga koy wax waa Tivaouane waa Sénégal lan lay doon. bon mesure de barrière rek gis nga sama doom yi ma àndal dama leen a takkal masque booy nangu ñoo génn sax fi ñu toll nii lu ndaw li soo génnee du du génnee tuuti génn ba ci bunt kër gi daanaan sama masque jëluma ko day génn. donc euh, il faut ñu ñuy takk suñuy masque euh, di raxas suñu ay loxo te maytu rassemblement bi parce que doo xoolee Tivaouane semaine bi yëpp chaque jour Tivaouane dina génne cas soit dina génne benn wala mu génne ñaar kon donc feebar bi waxuma sax Sénégal mais ñun fii ñu dëkk ci Tivaouane rek mi ngi fi quoi il faut ñu gëm ni feebar bi am na parce que am na ñu mu yóbbu am na ñu mu tëral kon Sénégal nañu gëm ni feebar bi am na il faut ñu bañ a wax naan feebar bi ay wax la wala ay nangam la feebar boobu existé la il faut ñu jëf def geste barrière yi nañuy takk masque maytu jaxasoo bi maytu rassemblement bi di éviter yeneen ndaje yi parce que duñ ko éviter rek xoolal Sénégal demoon nañ bay dégg ay 3 4 cas c'est parce que boobu ñu ñëpp fonk mais après ñu bàyyiku bi ñu bàyyikoo affaire bi ñëwaat te période bi ñu nekk ni période sedd la day gaaw parce que genre grippe la pour nga pour nga am ko day c'est trop vraiment daal maa ngi ñaan yàlla yàlla gaaw jële ko fi parce que tamit nag lu metti la ta soof feebar bi metti na lool lëjal nañu ndax bloqué nañu ñun tukki kat yi ñun nga xam dañ daan dem fu nekk léegi pour nga am billet d'avion wala dëkk yi dañ naan la seen ambassade ubbeegul yenn saa yi nga war a dem fenn xool mesure yan fay teg da nga naan jaru ko naa toog ba affaire bi wàññiwu te xamoo kañ lay jeex ñu ngi ñaan yàlla daal ci mbaaxam eh, yàlla na ko fi jëlee feebar bi daal yàlla na fi jóge ba ñun ñu mën a reprendre suñuy activité à 100 pour cent parce que nit ñi sonn nañu. metti na yëg nañ ko ñun borom kër yi metti na trop trop trop trop waaw am na ñoo xam ni euh, ñooñu tane yëg nañ ko am na ñoo xam ne ñoo leen tane yëg nañ ko. kon vraiment ñi ngi ñaan yàlla daal vraiment yàlla na fi jug te nit ñi maytu ko su nit ñi jugee rek pare pour xeex ak moom jëlee ko fi rek yàlla mën na ko fi jëlee quoi lépp nag mooy maytu rassemblement yi bañ a topp suñu bakkan dëj yi waaw il faut ñu moytu rassemblement bi daal waaw. Matar kàddu gu mujj gi lan lay doon. waaw kàddu gu mujj gi daal mooy que di sant yàlla di wax ni que Tivaouane na leen président de la république gersu gën leen jox loxo parce que am na lu mu am Tivaouane Tivaouane mooy dëkk boo xamante ni que mën naa wax ni que quatre-vingt pour cent population bi moom la ñu àndal ndax sunu sangu yu tedd yi. kon moom war nañu gersu jàppale ñu ñun waa Tivaouane jàppale leader politique yi Tivaouane yi war nañu dooleel Tivaouane war na am ministre Tivaouane war na am des directeurs généraux Tivaouane war na am ay PCA waxuma sax Tivaouane mais même le département de Tivaouane kon président ñun waa Tivaouane soxla nañu sa ndimbal soxla nañu sa loxo parce que ñun heure boo ñu soxlaa dañuy gis te duñu hésité dañ lay ñaan nga gersu waa Tivaouane parce que soxla nañ ay poste clé yoo xamante ni que war nañ ci mën jàppale askanu Tivaouane di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni na ñëpp nekk ci jàmm politique non non ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñu ànd nekk ci jàmm lu waaye am ñu xam ne wërsëgam la ci politique asalaamaaleykum di ko sant bu baax di koy gërëm mu nekkoon Matar Diouf responsable politique APR fii si département bu Tivaouane mu nekkoon suñu gan seen biir émission géew bi di leen sant di leen gërëm di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun di sant tamit di gërëm waa place Seydil Hadji Malick bi nga xamante ni boobu ba léegi chaque fois ñoom ñoo ñuy accueillir fii di ñu permettre ñu koy def ba ngeen koy mën a seetaan di remercier ñi nga xamante ni ñëpp ñoo si jàppoon Papa Badou ci caméra bi ak ci montage bi El Hadj Doudou si présentation bi di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen gan jërë ngeen jëf